asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fi waaye mën a nekk ñoo leen di jaar leen ñaanal jàmm ñu ñëwee seen naafile yi ku julli guddee ñaar fukkeel ba ak juróom-benn ku julli guddee ak juróom fukki rakka rakka bu ne faatiha benn yoon alxaariatu ma alxaariatu xul huwalaahu juróom yoon ku julli guddeeg ñaar fukkeel ba ak juróom-benn. fukki rakka rakka bu ne faatiha benn yoon alxaariatu ak xul wala axat ne ci juróom yoon alxaariatu juróom yoon xul wala juróom yoon bu noppee mu wax astaxfirullah kem kattanam lam ca man rek dana am yoolub ku woor diirub jamonoom yàlla dana ko musal ci sawara yàlla dana ko bindal limu biddiw yépp ci asamaan ak limu xobi garab yi ci yiw baba saari taxaw jibril nekk ca ndajooram Mikaayil nekk ca càmmoñam ca gannaawam Asraayil ca kanamam Israfil ba mu dugg àjjana